ko defee li seen Babacar daan wax ni seen làmmiñ moo tee bés bu nekk junni nit daanu dañu bare lu ñuy wax safaan dañu bari lu ñuy wax safaan dañu bare lu ñuy wax safaan daf ko daan xul waxtu wu nekk waaye terewul dabaatal nag fi leen ko fekk ma Umar ibnul Xataab daan na ko wax daan na wax ni nga dabaatal nee na moo gën nga wéy ci neen nga dabaatal moo gën nga wéy ci neen ndax yonent bii te moom lañu am te dama amoon benn gan mu ni ma Sénégal xamuñu li ñu am buñ ko xamoon dinañ ko organiser mu ni ma am genn tabarkal lu kenn amul ma ni ko waaw dañ nu koy tagge waaye kenn du ñu dimbale pour ñu organiser ko ma ni ko mooy musiba mi ba tax na loolu fa la ñu te diine kenn du ko dunde politik kenn du ko dunde ñoom ñaar dañu orienté nit waaw pour moo xam na muy dunde waaye ku dunde sa diine yàq la akluha bi dufi wal xayru min akliha bi diin moom la Maodo wax nee na jëlal sa ndënd dem ca marché ba di tëgg ñu di la jox ay ñaari dërëm ak ñett ne moo gën a dagan nga kaalawu génn naan pour ñu jox la dara ne baaxul ne jëlal seen ndënd dem ca marché ne tëgg ñu jox la la akluha bi dufi wal mismar xayr min akliha bi diin sama benn mbokk daara dama ko fekk ca wetu marché Sandaga nga taxaw tàllal loxo yi ñu bari ñëw wër ko tàllal muy ñaan ñaan ga yàgg ma xam ne dafay bëgg ñu gis ko ba mu noppee ma ñëw musuk may xamni ma ko waaye yow itam ken du ñaan ci mbedd mu ni ma way yow mi ko bëggul kay bu ko def waaye man loolu rek la bëgg ndax dara daraja rek la bëgg tabarkal ñaan ci mbedd fay joxe dara ci lu ken musuk ko gis yàlla xam nako ko fekk na la akluha bi dufi wal mizmar xayru min akliha bi diin waaw ñu di ci bàyyi xel te bari na koo topp mu di la woyofal te boo liggéeyoon ni moom du la tane waaw du la tane man xam naa ci dara waaw bu ko defee rek côté boobu ñu bàyyi ko xel parce que bu nu xëyee ñépp bëgg a dunde diine rek àdduna tukki waaw dafay indi yàqu-yàqu day indi yàqu-yàqu te même wàllu administration même wàllu administration <laughs> dafa mel na di ci bàyyi xel ba ñu di ko jaarale yoon dafay baax ndax dama toog bés gis benn mbokk ma ni ko yaa ngi mel ni danga songoon mu ni ma parce que defatuma dara ma ni ko moo ne yow kenn jëkkule ci sengoor mu ni ma waaw mais il m'a laissé tomber ma daal di bàyyi noonu bi ma gisee Senghor ma ni ko am nga fi wëllëre woo xam ni de dafa mel ni danga ko bàyyi gannaaw mu ni ma kan la ma wax ko ko mu ni ma kenn dafa mënul konte ci moom moo tax bi mu ko gisee ma ni ko bu ma nëbb wax ma lu xew mu ni ma dañu commencé di liggéey bu nga xam ni du liggéey bu jub ndax dañ ñaan ñetti kilifa ñu wàññi seen doole te bu ñu ko yëpp te kenn ki jigéen la te ñun mën nañu def loolu mu jëm ci góor waaye mën nañu ko def mu jëm ci jigéen ma ni ko wax ma seen tur mu ni ma kii Ibrahima Seydou Ndaw la tudd ca Kaolack nee ñu nañu wàññi dooleem mu ni ma kii sëriñ diw tudd nee ñu nañu wàññi dooleem mu ni kii Caroline Faye la tudd ca Mbuur ni nañu wàññi dooleem mu ni ma def nañu liggéey bi wante mu ni ma xam nga karo du bàyyi boppam kenn di ko lor mu ni ma te Ibrahima Seydou Ndawit du bàyyi boppam kenn di ko lor mu ni ma waaye sëriñ bi nag bëggul wax situation ndax ruus na ko waaye ñu ngi koy lodde ma ni ko baax na yàlla àtte réaction Ibrahima tax lañu bëggoon amuñu ko moom it mu informé Caroline Faye mooy jabaru Demba Jóob Jóob buur sama wëllëre la woon yàlla xam na ko lu nekk la ma daan yónnee si moom Karo xam nga yu mel noonu ci administration baaxul parce dalal ci kaw ku la tooñ waaye bul dal ci kaw ku la tooñul ah waxuma la jariñoo doole nit ba noppi ne xam naa ni kii borom doole la naa naa naka rey doole ji kooku baaxul kenn du ko def waaw yàlla ate sengoor mujj ko yërëm mujj ko yërëm daal wutal ko place place bi fasuma ci yéenee jël Abdou ci yéenee jëriñ Senghor yow mii laa fa nekkal fekk ñu ngi teg limonaat ñu ngi teg verre pour xelli limonade xale bi xellil ko limonade ci verre bi verre bi ni tëll toj mu dem indi beneen weer xellil ko tojul ba mu génnee ba mu génnee ki doon xelli limonade bi comme làkkkat la mu ne ma bu doon ñun ci làkkkat de dama naan li mu la wax fii yëpp dara du ci dëgg ci teg ci fan yu néew am ku ñëw ni ma wattul de wattul de ma ne ko lu xew mu ni ma rekk ñu tegati ci ay fan sama benn mbokk jóge ndar di mbokk deret ci sëñ Babacar si tey gorom ni ma dégg naa def nañ ci yow rapport bu bon ma ni ko ku ko def mu tudd ma kooka ma ni ko ahaa mu ni ma ki ma ko wax du fen ndax kookoo sës ci moom léegi nag li ma ci xam mooy nga nëbbal ko ko bañ koo wax da ñaan nag nga ñaan ma ni ko ah yow xanaa xamuloo yàlla yàlla mën nga ko ñaan ren mu jëkki ba déwén di ko soog a jox ma ni ko duma ci def benn ñaan benn ñaan laa ci dul def dama koy faj daldi jël rapport ba yóbbu ko ci Jean Collin ni ko lii lan la ku baaxoon la ci man hmm. mu sëgg ba mu yàgg mu jël téléphone bi daal laaj Abdou ni ko ndax Cheikh mën na fi jaar si ni ko waaw ma jaar fa wax ko affaire rapport bi mu daldi xul xul xul ni ma kooku xamul administration combine la xam nangam nangam ma ni ko déedéet waxuma lool dama lay laaj loo ciy def ndax yow yaay premier ministre ma ni ko te kii li mu def li ngeen di tuddee droit de l'homme moom la bëgg a rendi te ma ni ko yàlla dafa wax ci alquran ni وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يقول كيما اندي رابور بي مانيكو جهاد في سبيل الله تي لا من يقول نده لي توغ لا نيما بان ماي ما نياتي فان ماي كو نياتي فان waxul dara ma woo ko ci téléphone mu ni may ma ñaari fan ma ne ko ñaari fan waaja jékki-jékki ñëw ni ma man daal dama jaaxle ma ni ko lu tax mu ni daq nañ ma ma ni ko loo def mu ne ah yëguma ko eh, mu def ko choc nag mu gaañu ci fan yooyu gis nga yu mel noonu ci réewu jullit baaxu lu nekk danga koy leeral waaye rekk ñu ni la kaay xeex diw rekk nga jóg di ko xeex ci suuf te moom yëgul tinul xam nga yooyu nag dafa war di jeex ci dëkki jullit yi parce que baaxul waaw dafay def ay niiri musiba jàngoro yi di yokk ñàkk gi di yokk te yooyu baaxul kenn du ko def loolu li ma ci daj fii ci Sénégal kenn dootu ko daj ci kaw suuf waaye bu ci ne duma ñaan mukk damay jóg lijjanti ko waaw damay jóg lijjanti ko rekk ndax bu namee leer ñu bàyyi ko bu namee leer ñu weer ko ci waañ wi ñu bàyyi ko parce que baaxul loolu bés bu ne dafay dafay am te yooyu jikko tubaab la tubaab yoo koy def ci seen administration yi waaye warul nekk jikko jullit nag ça il faut le dire mais Sénégalais yi dañu bari lu ñu jële ci tubaab yi te baaxul baaxul tubaab yi dañ koy xul ma di ko dégg ñoom dañ koy xul dañ koy xul te te sunu doom yi rek nag la ñu yaakaar ak sunu jarbaat yi ak sunu sët yi kon nag bu ñu leen doon na le lu mel noonu lu mel noonu baaxul ci réew dafa fekk nag nit ki bu jàddee yoon sañ nga ñëw seet ko ni ko jàdd nga yoon bu dee lu mu mën a bàyyi mu bàyyi ko bu dee loo xam ne fas ko yéene bàyyi ñu punir ko et waaye jaar ca suuf di fexeel ku la deful dara naan waaw bu amee doole fii nangam nangam bu amee doole fii gis nga nun pouvoir soxlawuñu ko xam nga pouvoir soxlawuñu ko ma wax la ko tey pouvoir ci boppam daa dama mas am koo xam ni dafa dugg ci sama biir alal yàlla dogal am ku ko ca yedd te ki ko ci yedd di tubaab ni ma xam nga baatu spoliation ma ni ko waaw mu ni ma moom la Hitler daan def juif yi mu ni ma moom lañ la bëgg a def ba dem naa yeddu ko mu ni ma parce que bu nu ko lorul ci alalam dafay am budget de guerre billaahi te kooku noo bokk tariqa loolu defe nga ni jëkk na moo tax déggul sox ba moo taxit déggul sox ba yooyu dafa rafetul ci réewu jullit parce que baaxul budget de guerre pour lan pour pouvoir boo xam ni bu ma ba ma xëti lay doon loolu kenn soxlawu ko loolu kenn soxlawu ko waaye lii la ko wax ni ko budget de guerre lañuy bañ mu am ko nangam nangam nangam wax a wax te noo bokk tarixa bi loolu baaxul mu mel ni kon di ko wattandiku lu baax a baax a baax la waaw heureusement que lu ci ne yàlla daf koy faj waaw daf koy dal faj lu ñuy doyee ak lu ñuy doyee pouvoir pour lan foo koy teg loolu amul moo tax suñu waxee ni PSS dañ ko doon def pour xeex ak ko kooko xamul affaire bi ni mu demee xamu ko mukk xamul affaire bi na mu demee gis nga dugg naa ci parti politique gis nga fi ma toog mësuma wote mësuma inscrire mësuma wote mësuma inscrire mësuma wote inscrire loon ma ndax bëgg parteem bi may bàllu si àq ci civière lañ ko teg ndax santuma ko ko mu baalu ma ma ko ak ñu teg ci ñetti fan mu faatu waaw waaw pour wax la ni yëf yi caaxaan baaxul lu ñuy doyee pouvoir nun kay dañuy mën a gis gor bu mën a amee réew mi ñu jàppale ko loolu rekk la ndax njaboot njaboot la tudd waaye pouvoir dang-dang ji dang-dang ji ci pouvoir kooku kenn ñaanu ko yàlla mukk ah loolu kenn ñaanu ko yàlla dang-dang joo xam ni du la wàcc mukk mukk mukk abadan loolu kenn ñaanu ko yàlla nun soxla wunu pouvoir yàlla xam na ko waaye nag sañ nañu am sunu xarit wóolu ko jàppale ko te bisitu leneen mënul nekk te it bu bu tooñeen wax ko ko bu tooñeen wax ko ko moo xam dafay bàyyi walla du bàyyi waaye bu tooñeen wax ko ko man loolu loolooy sama jikko yàlla xam na ko te ñoom ñëpp koo ko ci laaj mu ni la dëgg la bu nekk bu xale yi daan dal ci kaw ju juuf ma ni leen am na qualité de parce que lu ma ko tere mu bàyyi ko yàlla xam na ko te dan daan xeex guddeeg bëccëg waaye dara dana am ma lii mënul nekk mu bàyyi ko yàlla xam na ko toog naa fii mu bàyyile ma doomam ni ma na nga ñëw ca pale ba maye ko mbooloo sax du fa ñëw ndax xam naa ni soppaloo mbooloo waaye nga ñëw mayal ma sama doom bu jigéen wax naa ko mustafa Bachir ba ne dana fa dajeeg yow bu ko defee juróom benn rekk la nuy doon te maire bi Doudou Diop moo nuy juróom benneel ndax xam naa sa jikko ma ne ko bu ma ko defee yàqal la ma ne ko ndax ñi ma bàyyale seen doom fii tey soppee sëñ Babacar te ku ci ne ilimaan jëng dëkkal laa lay booleel ca jàkk ja mu may la bu ñu déggee ne maa ngiy këriñ këriñ ngi jëm ca pale di maye ji ñu génnee ci man àdduna ak àllaaxir mu ne ma wax nga dëgg boobu gisuma ko woon mu génn ca te amul benn rancune toog naa mu téléphoné ma ni ma tey ñépp a ma ni ko lu tax mu ni ma dama la bëgg a te comme ñi ci présidence ñëpp sa xarit lañu ñoom ñëpp préparé nañu sa doom yeeg ñoom madame Ndoye ak ñoom Yacine ñoom Ndiirët mu ni ma ñëpp préparé nañu seen cadeau nga ñëw ma décorer la ba ñëpp xam loo doon ci man

bu ko defee yu mel noonu loolu rekk lañu séq ak ñoom wax wax leen lu nu xam lu rafet waaye xëccoog ñoom pouvoir du nu ko def yàlla xam na ko Senghor dafa yónnee Alaaji Paala Mbay ni ko jëlal oto bi dem jëlali ma Cheikh ni ko maa ngi koy yëgal ne Ada Senghor dafa faatu bu Cees te nag ku ñëwul ci dëj bi naa la mere ndax mooy sama baay mooy sama mag waaye mooy sama baay jëlal oto bi dem jëli ko paale ñëw tabarkalla ma nga sol keroog manto bu rafet indi oto sengoor ni ma duggal ñu dem Cees ca dëj ba ma ni ko soo demee neel sengoor lànk na ndax astukan jóge na fi te ñëwul ca dëj ba billaahi wal kitaab ka caaxaan baxul ni ko nak bu fa joge man dina dem jàlle ji ndax ña fa nek sama njabot lañu ndax sen yaay sama wëllëre la ta ay ta job ku bax ci man mu dem wax ko sengor sengor ni tekk ba mujj mu ni ko wax na dëkk mu ni ko waaye bu ma ko expliquer lutax ñewuma ci tëjuwaat sukkan dina ma bal ndax booba dafa fekk wàllu sante taxoon nag noonu la ko daal di wax te fekk na ci ñi ma jëkk a téléphoné ca la bokk moom sengoor bi fi soxla si jógee Lamine Gueye moom soxlawul sama téléphoné ko dafa ni dañar ci sama kaw ni ma ana ana Senghor ana Senghor ma ni ko ñëwagul waaye yónni na Cissé Dia mu ni ma yónni wu ko Cissé Dia boppam la ñëwal ndax astu gën a jur ñëpp tey waaw ni ma an sa téléphone ma ni ko mi ngi ci néeg bi mu ni ma sengoor lay woo ma ni ko ëpp naa def bu ko woo bàyyi ko rek mu dal di bàyyi pour wax la ni noonu man boobu relation laa am ak ñoom jeex na jeex na bu ñu jaari ci yoon ma d'accord ci bu ñu jaarul ci yoon ma wax leen ko et kooku loolu rek la yàlla xam na ko ba moo tax affaire pouvoir du ñu tax a yëngu affaire affaire pss ni mu démé dama tok rek gouverneur woluma ma gouverneur du sénégal tubaab la ma ñew mu jox ma ñaari texte bu arab bo arab ak bo français ma jang ko tawah wax ma lu ci sa xalat ma jang ñaar yépp ma ni ko suñu constitution la

bu ma ko defee yàq noo xam ni kenn du xam na mu toll mu ma kon nooy def ma ni ko damay jël position bu ma jëlee position ba mu tàng ba tàng daañu dem wuti alliance su sëriñ si mu jeextaan mu ni ma ay risque ngi ci ma ni ko moo tax ma di ko jël ma ko lu amul risque baaxul waaw yàlla xam na ko loolu dajeeg intellectuel yépp dem ko tunu def fa seen réunion ni dañuy laaj indépendance total bi ñuy laata ñëw fekk ma def sama déclaration rejeté lañu fa wax yépp wax ni duñu def mukk indépendance nekk ci loxo néegar yi kese kese duñu ko def parce que xaru Senghor ñëw ba mu ñëwee gis déclaration bi jóge Cotonou moom Senghor mu bind ma leetar ni ma Serigne Babacar Sy moo la inspiré position bi nga jël parce que lañu arrêté ci Cotonou buñ ko doxalee nun ñépp dina naal ko loolu la wax moom Senghor lettre bu rafet la ma ca bind Mamadou ja ñëw def déclaration wax ni d'accordul ci sama démarche kon nag mouvement bi ma def nañu ko daal di dissoudre nga defee ni mer naa ci mukk dama daal di xam fu yëf yi mujj ndax ñaari philosophie yu bokkul la te ñoo séq réew mi kon nag ci éclatement rek lay mujj yàlla xam na ko moo tax du Dia mujj na ko wax ci kanamu Hadj Ibrahim Niass ni ma loonu critiquer rek d'accord naa ci da fekk dama ko mënula wax rek te wax na dëgg ba ñu génnee Hadj Ibrahima Niass ni ma kii ku honnête la bu honnêtul woon du waxe nii yàlla xam na ko lettre ba ma seen Senghor bind lettre bu ne rafete mësuma koo gis lettre ba sax dafa am ku ma ko àbb ku ñuy wax Foccart te nekkoon ak général de Gaulle ma jël lettre ba jox ko Élisabeth Diouf pour mu yóbbul ko ko booba Élisabeth a ngi ca ambassade ba booba Abdou Diouf dencagu ko booba mi ngi am xale bu tuuti bu jigéen bu bu ko yàlla jox ma ne ko takk naa sagar ci tànkam ni mag ñi daan wax ma ko li ma metti mooy bu màggee dafay fekk ma màggat yàlla xam na ko pour wax la ni nun jógewuñu ci pax ki nu yar lu ne la xam sëñ Babacar Si nuy barkeelu ci moom rek boobu façon lool la moo tax ñu def PSS ne comme dissoudre nañu mouvement bi nañu def parti politique pour wane li nu sañ ñun itam moo tax waaye bu fekkoon ne wut pouvoir rek la bu ñu sàccee élection ya kon nu taal réew mi waaye ba ñu sàccee élection ya nun ñëpp doon sant yàlla moo wax la ko yàlla xam na ko ba bërki démb maa ngi ciy waxtaan ak Serigne Moustapha mii ma ne ko seetal booba bu fekkoon ne noo gañe téye réew mi ba léegi ni ñuy saaga niti pouvoir yi lan nuy saaga ma ne ko ndax dana fekk du nu mën a réew mi duñ ko man koo xam ne doxal daayira dafa la te mën nga gérer réew dama leen koy laaj waaw ma ni ko sëñ Babacar si am na juróom-ñaari at di réorganiser daayiratul kiram mu te ticc te mënoo ëpp barke mënoo ma ne ko Sénégal yi noonu la ñu mel ils sont naturellement indisciplinés loolu la yàlla dogal ca Blaise Diagne ba léegi jàmm amul ma wax la ko ca Blaise Diagne ba léegi te ku ci ne booy tàmbali yiw ngay tàmbalee te ku ci ne booy tàmbali yiw ngay tàmbalee waaye li Blaise waxoon sëñ kër si mu ni ko yaa ngi mel ni danga xaw jeex mu ni ko sëriñ damay def ba duma jeex parce que dama am ñeenti problème problème bu jëkk bi mooy ñi ma ñi ma xaritool defe nañ ni noose pouvoir bi rekk moo ci des ñi ma bañ itam defe ni sosal ma rekk moo may daaneel tubaab yi nekk ci diggante bi di exploiter ñii ak ñii ba noppi te jabawu tubaab laa am dama am complexe duma la ko nëbb yow ñu ko ñeent problème yi ñoo ma jeexloo nii seetal loolu ah waay xamuloo ni mag ñeenu yar mag ñeenu yar te depuis Blaise ak léegi looloo nekk ci senegal ba mu fi jógee ngalandu la fi bàyyi Ngalandu itam li mu bëggoon a wone mooy wone ni sénégalais la te bu ko wonee ba mu jeex ji ko wolof ñëw te bu jikko wolof ñëwee du fi def dara maa la ko wax mu jóge fi Lamine Gueye ñëw aksi di doomu nit ku yiw nekk un nit ñi ku nekk ak sa bakkan ni ko kaay dundalal nu sunu bakkan mu toog fi li fi nekkoon na ko si néew nit ñi séddoo ko mu jël westam teg dem yoonam bi muy dellu si nag mu indaale sengoor sengoor ñëw ñu naan kii kaw asamaan la jóge li mu jàng tubaab sax jàng ko ñu di ko yóbbu ci penc yeeg fu ne mu naan kanaxaat nit ñiy daanu aal naan déggal nee na kamaxaat yëwi caaxaan yooyu yu kenn xamul waaw yu kenn xamul te du noonu du noonu du noonu Senghor boo ko waxee dëgg mu nangu ko yàlla xam na ko loolu moom qualité la maa ko xam ci moom maa ko xam ci moom dama dem di voyager pour benn projet bu ma am ndeke dama tëdd rekk am ñu dem yàq bopp bi dëkk bi ma dem fi ñu toog di def réunion pour projet bi kenn ñëw ni dafa jaaxle parce que Sénégal ëllëg Senghor dana visiter chantier HLM yi te kenn mësul gis fu président de la république di visiter chantier HLM même ministre sax waru fa dem directeur construction rek a fa war a dem ni ma kon nag am na déclaration bu mu fa war a def te ragal naa ni sa présence fii moo tax mu di ko def seetal loolu ca ëllëg sa rek Senghor def dem def déclaration wone ni Euh, fi régime socialiste mo fi ne nangu monopole mu ni ma justement Lolo taxone man ni la nang ko deglu hmm. mu ni ma sa projet bi la ma ni ko mu ni ma kon nag on laisse tomber manuka. Ah non ce n'est pas parce que Senghor wax na lolo. rek ñu wara a bàyyi parce que yalla fi nek limu bind ci jëw nit kenn mënu ci dara mu defee ni damay kaf ma ni ko demal gisee ak un waxtaan ak moom mu dem gisee ak Senghor waxtaan ak moom Senghor ni ko ak projet nu mu man toll fii ci Sénégal 30% pour cent yi rek la ñuy jox Sénégal yi parce que gestion mënuñu ko Sénégal yi mënuñu gestion am na xale bu baax boo xam ni moo doon ministre hydraulique te nekk sama mbokk te nekk taalibe maam Serigne Touba mu ñëw ni ma waxal sengoor bu mu waxati nit ñi loolu parce que dafay bloqué aveniru xale yi bu defee ci boppu tubaab yi ne xale yi gestion mënuñu ko àdduna dafay tukki ma dem seeti Senghor mu ne ma oui man maa ko wax parce que fii gestionnaire amul fii bu ko defee trente pour cent yi soo bëggee ñu seddee la ko ma ni ko déedéet trente pour cent soxla mu ma ko cent pour cent la soxla ma ni ko danga may wax nag man nga walla mënuloo mu ni ma mënuma ma ni ko bon li ma xam te xam ko mooy bu ma fi jógee nga jox ko ko jur lool la yow pour yow sa fami rek a compté man compté wu ma sama famille compté wul ma ni ko wante tey la ñuy teqalu ko abadan gis nga àllaaxira yàlla buñ fa gisee mag yow billaahi wal kitaab mag koo xam ma jóg di dem mu téye ma ni ma déedéet toogal nu waxtaan man safaan taxul ma wax ko dama foogul ni rek fii di fi am un gestionnaire boo mën a confier loolu te dem doxu sa soxla ma ni ko bu dee lool rek kay def ma confiance mu ni ma kon nag def naa la confiance ma ni ko téléphoneel ñi nga waxoon ni doo ko nangu mu téléphoné leen ni leen nangu naa ko mu jax takk parce que loolu la.

président ivoirien bi moo ko yónni ci man mu ñëw ni ma jógal dem ko d'Ivoire gaaw balaa tas Ousmane Ngom jiitu na la laaj ko Ousmane Ngom laaj ko Ousmane ma ni tekk ba mujj ma ni ko demu demuma amu ah, ni ma loolu mënul nekk ñu daldi woo Ousmane Ousmane woo ci téléphone bi mu wuyu ni ma président baa ngi lay xaar wutal naa wutal na la ñaari daluwaay wutal na la daluwaay ca otel ba Ivoire wutal na la benn ci Cocody pour nga recevoir fa daayira yi ndax éclatement dafay bëgg a am ci noor ak sud ma ni ko ñëwuma rekk yam foofu ñu jaaxle moom mu jaaxle ma dikkee jaaxle ma ni demuma ñu bàyyi noonu ñu teg ci ñeenti fan Ablaye Wade ñëw ni ma wax yow ku la xamal affaire bi ni ma ndekkee boo demoon àdduna tukki billaahi wal kitaab ni ma ku la ko xamal ma ni ko ah ku nekk ak sa kilifa waaw waaye yenn yi yenn yi ah, soo amee yenn kilifa yi ñoo lay dimbale ñoo lay dimbale ci xalaat yooyu li ma ciy daj mënuma la ko nettali mënuma la ko nettali ba tax na affaire pouvoir ak piir yu kenn xamul rekk du noonu du noonu nag dëgg la nag mu ngi tolloog bu ñu demee ba kenn ku ne ni yàq ma gënal fexeel yow itam loo mën a yàq nga yàq ko waaw et puis surtout kooku noonu rekk la boo demee ba ku nekk ni yàq ma gënal yow itam loo mën a yàq rek yàq ni waaw kooku loolu rek la parce que moom rek a des bu desee ku ne ni damay yàq yow it yàqal loo man rek waaw te jàpp ci yàlla nag man toujours noonu lay def toujours noonu laay def bu ko defee nu nekk fi rek di taalibe yonent bi nekk fi rek di taalibe cheikh nekk fi rek di taalibe Maodo nekk fi rek di taalibe sëñ Babacar si et puis surtout leneen amul ndax itam ñaari silk rekk a fi nekk silkul ambiya wa silkul awliya silkul ambiya yonent bi mooy xaatim bi amul werante te kenn négocié woo koog moom dañ ko ci dañ ko orienté obligé ko mu nekk xaatimul ambiya waaw waaye silkul awliya cheikh a nekk xaatim bi والقدم المكتوم والبرزخ المختوم آه. موم لا كان فيكو كوتش آه. مي القدم المكتوم والبرزخ المختوم آه. تموي الغوث الرباني والعارف الصمداني كوكو كنف كان فيكو كوتش kooku kenn fekk ko ci ndax itam <laughs> dafa am benn xarit bu baax la tubaab la te dafa gëm dafa gëm diineem nee na ma cheikh maa ngi ci sama juróom-ñeent fukki at mësuma tux mësuma naan mësuma doxaan sama jabar benn at laa ko màggee te li ma mën mënatu ko ma di la ñaan nga ñaanal ma bés bi muy dee walla bés bi may dee nu bokk ko deeandoo mu ni ma ma dee bàyyi ko gannaaw fasuma ko yéene mu dee bàyyi ma gannaaw fasuma ko yéene kon nag ñaanal ma nu deeandoo ci benn fan te ki ma doon wax lii gisuma ku ko raw ci tugal te xaritu benn bakkanu sengoor la ma ni ko dafa am foo juume mu ni ma fan la ma ni ko tàgguwuloo sa jabar mu ni ma wax nga dëgg erreur bu rëy laa def mu nangu ko beneen yoon ba mu ni ma comme léegi dootuñu xuloo nanu ma wax la ni nangu naa ni Muhammad c'est l'un des hommes les plus intelligents au monde waaye nag mënul nekk prophète parce que prophète yaa ngi yem ci Isa ma ni ko pour yow chrétien mu ne patt ba mu yàgg ni ma wax nga dëgg juumati naa gan gi mu àndal ni ma mais man gëwuma yàlla te moom mi ngi gëm yàlla te nu ngi xaritoo ma ne ko du ci dara

On le hasard, c'est une épithète parmi tant d'autres. Maniko, hasard ah. Maniko, c'est une épithète de la volonté de Dieu la preuve si vous appelez le hasard ce n'est pas le hasard qui répond c'est la volonté de Dieu qui répond ñu continuer nonu soow soow soow mu ni ma est ce alcorane wax na ci dara mané ko waaw mo mu ni ma man nga cité verset ba mané ko waaw mu ni ma ban la mané ko atadona ba'la atadona ba'la wa tadaruuna ahsana al khaliqin mané ko lol la ma ni ko yàlla xam na ni am na ñoo xam ne asaare seen yàlla waaye moo mu ngi leen di laaj moom yàlla ñi def hasard muy seen yàlla mu ngi leen di laaj naka la leen loolu dale parce que ñoom ñoo ëpp valeur hasard naka la nit di jaamoo lu mu ëpp valeur innakum wa ma taabudun min dunillah xam nga loolu tax nit ñi xàmme wuñu loolu gis nga ki fettiirlu di wone ne xam na ma moom guy gi lay jaamu yëgul ni guy gaa ngi koy rëbb yëgu ko ki fettiirlu ni mi ngi jaamu mbëtt mi mbëtt maa ngi koy rëbb ndax yàlla inspiré na mbëtt mi ak guy gi yépp ni seen nattu mooy ñu jaamu leen ne ko mais ki way kiy jamu xamul loolu pour wax la ni euh yonent bi ken daf ko meunul fay ndax léppam dafa leer te itam dara meun ko fete kaw mom itam mu nangul yàlla ni alquran mësul gis lu mel nonou yonent bi dafay daanoo àll ndax alquran seetal loolu te dafa dafa nàmp wax wax daf ko nàmp yonent bi dafa nàmp wax ci famille bu nga xam ni kenn mësul yem ak ñoom ci wax yàlla dollil ko ci la mu ko dollil ba bu àddoo ñépp a koy xool moom yonent bi waaye moom it bu alquran wàccee dafay jaaxle kuy waxe nii kan ñu xam ni kon nag am na fu mu jóge waaw loolu kenn mënul fexe indi argument bu tegu ci kawam loolu mënul nekk parce que maa ngi koy waxtaan ak sama benn sët médecin la fekk affaire u anticorps pour ni buur bi defe rek fekk yaramu nit mu def ci ay anticorps mais en même temps mu permettre yeneen yi microbe ñu jaar feneen dugg ci biir muy seetaan xare boobu seetal loolu mu ni ma c'est paradoxal ma que justement il aime les paradoxes parce qu'il est Dieu le créateur mais il est Dieu le roi aussi loolu moo tax moom ku ko nangulul paradoxe yooyu du jubóog yow du jubóog yow ba tax na moom ku yomba jubóol la waaw te itam ku def xarit la ci kaw nga dal ci kaw nga dal wa salli alayhim inna salawatika sakanun lahum ci kaw nga dal euh, cheikh mbiram dafa dafa dafa yéeme ndax dafa doon gan fa mu nekkoon te itam agam àggul fenn waaye révolution yi mu def ci àdduna bi kenn mësu ko def ci àdduna ndax bi ñu nee silkul awliya automatiquement dañu def délégation pour seeti ko pour proposer ko mu nekk xaatim bi mu bañ yonent bu moom kenn proposé wu ko dañ ko ko forcé pour mu nekk xaatimul ambiya mais cheikh dañ ko ko proposé ba xam dina nangu nekk xaatimul awliya walla du ko nangu mu bañ mës nga gis ko am fitu ñu di la proposé xatmiya nga di ko bañ mais pas-pasam àgg na ci ak xàmmeem mu bañ ko mu bañ ko ñu ni ko lu tax nga bañ ko mu ni risque yi li ci nekk ci risque moo tax duma ma ko nangu ñu dem ceeg moom dem ceeg moom ba nga xam ni cofeel rekk mën na lu nekk mu su koy accepté bi mu ko accepté mu joxe ñaari charte charte bu jëkk bi mu ni nañ ko sécuriser environnement ah. ñu ni kooku mën na nekk parce que cosaan laa ngi ci alquran laa xawfun alayhim wala hum yaxzanun kooku yomb na ñu ni ko bi ci des mu ni ngeen fexe ba sanction bi ñuy tuddee maxq yàlla di ko teg wëli wu mag mu bañ ma ko teg sanction la bu nga xam ni yàlla wëli wu mag la koy teg ak système bu bew système bu nga xam ni léppam ci matérialisme la ko teg ñi ñaar la ko dencal kooku ñoom mënu mënuñu ci joxe garanti ba yonent bi benn yoon rekk li ci gis moo di mu nangu moom itam parce que mujj na nangu yonent bi waaye nag cheikh xam na ndax nangu yonent bi ci catu tuñ dafay wane ni am na chart moo tax mu laaj ko charte bi mu ni ko charte bi mooy nga compter ak ñi ñuy tudde alxaasa maanaam booy wut taalibe taalibe ba na tudd Alaaji Omar booy wut taalibe taalibe ba na tudd Haj Mali wut booy wut taalibe taalibe ba na tudd Cheikh Sukayrij booy wut taalibe taalibe ba na tudd Ali Tamasini booy wut taalibe taalibe ba na tudd Ali Harazim booy wut taalibe taalibe ba na tudd Ibrahim Rayaaxe booy wut taalibe taalibe ba na tudd ma jaxate kala booy wut taalibe taalibe ba na tudd Alxaaji Ibrahim Ñas wala papaam booy wut taalibe ah, koo xam ni taalibe yi nga am kenn ku ci ne mën na not continent seetal loolu ñu ni ko loolu rek moo la mën a sowe maxq du tegu ci sa kaw waaye amul benn waliyu bu nga xam ni mën na rëcc maxq maanaam day taal yal nañ ci yàlla musal ni muy tegoo ci système gaañ ko noonu lay tegoo ci waliyu gaañ ko parce que sanction yi ñuy teg waliyu ñett rek la maxq ak tard ak xidlaan te ñu ngi koy prononcé ca xayb maq ak tard ak xëdlaan maq wali yu mat sëkk lañ koy teg koy jële ci wujud delloo ko Adam mara day tali c'est tellement humiliant ba motax Cheikh bagn ni du ko jël ndax dañ lay jële ci wujud delloo la ci Adam c'est le retour au néant c'est fini kiñ ko tek bo demee ci registre bi nit ñi demee safara do ci gis touram boo demee ci registre bi nit ñi demee àjjana doo ca gis turam boo demee ci registre bi ci diggante bi dootoo ci gis turam ndax far nañ ko abadan te mën na am tegu ko boppam waaye boroom gémmiñ guree ko ko teg parce que yàlla paaka la kenn du ko jëkk ci mberam boo mayee sa sëriñ ci sa làmmiñ lu mu ko mayul du la sacrifier yow sëriñ ba lay sacrifier noonu lay def mu tudd mbaax dañ ko ragal ñoom ba mu ëpp tarde nag wali yu xeex ak borom jamono lañ koy teg wali yu bu xeexee borom jamono kenn dootu ko informé te buñ ko informé wul dootul fekkee seen prestation yi te bu ko fekkee fekkeetul moo koy taxawaaloo yam ci nekk xëglaan nag moom moo ci gën a doy waar moom presque du du sanction mesure administrative rek la waa xay boo koy def mooy ni yàllay def rek fekk ko xel ma matul mu may ko wilaaye seetal loolu li bukki di wax ni xamul séddale ne yàlla xamul sedd leen seetal fekk koo xam ne xel ma demewul noonu mu may ko wilaaya xam nga kooku bu ñuy jëlul mesure yu ñu ko sàmme ba tere ko mu wax ci mbooloo tere ko mu jëf ci mbooloo àdduna dafay tuuti